Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yeen yi seeroo nataal yi fu ngeen mën di nek ci biir réew mi biti réew moo ngi leen di nuyu ci kàddu islam googu di leen teel wax itam ni yeen ngi looyeen Cheikh Babacar Lo kër sëñ Lo ci kanamu xalifaam bi di sëriñ Mouhamadou Fadil Lo ñaam suñu borom yagal ko fi lo te wéru ko am mboolem njabootu sëriñ Makhtar bi ci ronam yëpp jataay bii ñu leen bëgg amal amalal nag day jataay boo xam ni day bu war ndax dañoo dëgmal bis boo xam ni jàmbaari lislaam jooju ñuy tudd aw turam di Maxtaar Lo moo ko sosoon bàyyi ko fii di bis boo xam ne da ci doon jàngal jullit ñi niñ mën a dabuwaatee yiwu seen borom muy bisu Badar ndax ñooy ñi gën a xemmem lu cër bu nu am ci lislaam ba nit ñu bëri naagu woon ni lan amoon kenn du ko mën a am sëriñ Maxtaar moom moom ñu nekk la suñu borom dogal mu génne wax ni yàlla min jaayanteeloon ndax dafay jóge mu ne déedéet suñu borom xëyul laa yëngu mu ni ndax dafa banque loxob jaayante wala déedéet mu ne kon képp ku jaayanteeg suñu boroom na waa ahlu badrin jaayantee woon dañ ca jariñ loolu itam ba ko waxee rek la ci xel yi doog a dem tax nag mu utal ko bis boo xam ne bis bu mandargawu la saa suñu accepté fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ñu amal màggal bu mag ñu màggalu badar boo xam ne na ko jàngalee woon ba léegi itam soppiwul ko yoon wi nag moo baaxoo day yokk ci lu baax a tax bis bi dem ba toll fii mu toll ginnaaw bi ñu ko doxalee at yu bari ci kan ci ci kanam ci nekkam ba bàyyi koo fi tawam bu baax ba sëriñ Mame di ko doxal ba suñu borom mu ñibbi àjjana bàyyi fii Cheikh Mamadou Fadil Lo mu ànd ak njaboot yëpp di ko def ren jii mooy fanweereelu at. ak ñent kon lool day wane ne ban ban ko mag ban sosay magal gi fi yag na tarikh bobu yep nak incha allah nañ ci dik ndax dafa am ku ko ci magal badar wala deet wala ru ahlu badrin suñu borom dafa lon sëriñ makhtar Lo eh, sargal ga moy sargal wa badrin ak yëkkati leen ak roy leen ak seen pas-pas ak eh, jokkale ci taalibe yi ban man caa jot ci tapu ci dogu ndax suñu borom da dencu lon loolu xel yëpp kon danaan waawaaw mun nañ ko denc lool loolu nag mu ngi fekk Serigne Mor Talla Lo euh, moom di jëwrinu sëñ bi ñu ki noonu nag njaboot gi yëpp ñoo ngi fi jotaay bi ndax ñor gu mu ñor sëñ bi euh, tax ñoom ñu teew ci ci euh, kon bis bi itam moom ngeen di gis ci nataal yi le 28 mars lay doon bii mooy 34e édition alxamis itam lay doon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru bare day ñëw itam ci biir màggal bi nga xam ni suñ biir bëgg na mu yokk lool ndaw ñi ne ñeent ci seddee cër ak soxna yi nga xam ne ñooy jëwriñu kër gi àndoon ak suñ Maxtaar Badar bi ñoom kenn du leen ci nekk di dara ak léegi ñëw ngi ci ñoom tam niñ ko taxawoo niñ ko waajalee waaye nag kan mooy sëñ Maxtaar Lo ba noppi jàmbaari sëñ Bédoo jooju nga xam ni Medina Fall moom dana ko xam waaye nag ginnaaw àdduna lépp dafa def interconnexion mooy jokkaloo ñu bëgg leen a xamal ni daal suñu borom làqoon na fii jàmbaar joo xam ni àddina mën naa jëriñ ci moom loolu yëpp sëñ Mortalla Lo moo ñu ciy dikkal lan moo waral màggalu Badar sëñ Mortalla Lo moo ñu ciy dikkal waaye ni ñuy def nag kon dañuy ibbee jotaay bi jox kenn ci dongay kër gi di sëriñ xaadim kànji mu tijjul ñu bis bi ci turu yàlla wala xasida su ko defee ñu wóor wasalaamaaleykum wa rahmatullah sana ilahi وأبدا أغنى يدي أنا دي سان إلهي بمنى جهادي وأبدا أغنى يدي أنا دي لا لا لي علماء والأولياء ما لا يزال قوة وقوليا قصيدتي فقد قصائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام هديتي مجلة كل مليك كان منازيا وزو مليك ما خطا وجوخنا سار الله لي بلا إله إلا الله ما توجعنا سار الله lii bilaa ilaaha illallah bismillah kon mbokk taalibe yi ginnaaw bi nu dooree jotaay bi kon ci xasida Serigne Touba googu ñu wax ni taxaw na taxawaayu mboolem xare bu waaye masa xareel lislaam bu waa ahlu badrin ak mboolem xare boo xam ne waaye xare waan na ko ci ginnaaw bi loolu wane na ni kon bis bi ñu jëm bisu dogu bisu takku la bisu pasif la jotaay bi nag ko war a ànd ak ni ñu ko waxee woon léegi sëñ Mokhtar Lo di ko xam si itam lu mu la wax ci bada ji kenn du ko dindi ndax bi ko sëñ bi sos ma nga fa woon teew na nekk ko xàmmee ko ràññee te am na liggéey boo xam ne sax sëñ bi defloo woon na bu njëkk boobu nga xam ni daan na ko waxtaanee lu yàgg waaye nag keroog la ko pas-pas bi def xaal ba mu jëmmal ko ñu jox ko kàddu gi incha allah subhaanahu wa taala asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa lana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ban sant yàlla julli ci yonente bi sant Cheikhul Khadim di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall di sant sunu jàmbaar ji Cheikh Babacar Lo ak jëwrinam jën ji moxtaarloo mi ñu indil bis bi nga xam ne mooy bisu Badar ba ñëpp mën cee barkeelu ba ñëpp nga xam ni xemmem nañu bis boobu mën cee barkeelu ndax Badar defe naa ni ku nekk dégg na ko ndax euh, lislaam su taxawee tey ba daj fépp bis booba moo tax ak ñooña ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam andalon muy ahlu badrinil kiram ñooñu ñooy ña nga xam ni ñoom la cheikhul khadim sunu sëriñ bu mag ba seeni martaba ba sàkk woon ci sallallahu alayhi wasallam euh, sëriñam ba wasilaam wa ne ko ca weeru koor wa ca euh, xalwataam ba mu ne ko ñii nga àndal ñoom laa bëgg bokk ci laa ñoom laa xemmem ma bokk ci ñoom mu xamal ko ni loolu ñii seeni ba dara mënatu koo maye ndax xare amatul waaye leen rek a fi nekk muy natt yi nga xam ne suñu borom teg na ko muy nattu yoonu géej gi mu defe naa ni foofu la keroog la xaatabanteeg rasulilah salaa salaam sunu borom jox ko natt boobu mu dem ci yoonu géej gi ànd ci ak ahlu badril kiram Euh, bis boobu nag mooy bisu victoire islaam bi gën a mag euh, sëriñ Maxtaar Lo indil ñu ko sëriñ Maxtaar Lo nag euh, buñ ko dee wax ngir ñi ko xamul mm, sëriñ Maxtaar Lo doomi Cheikh Ababacar Lo la Cheikh nag dafa naa ni ku ko xamul it dégg nga ko mooy taalibeeb Cheikh Ibrahima Fall bu mag ba nga xam ni mooy ki Cheikh Ibra njëkk a seexal ci Gànjool ca 1889 ca at ma ko xam ni ca la ko ku tedd ki wàcce yabal ko mu dem boori Ndar mu dem Gànjool Cheikh Ibra euh, Cheikh Babacar Lo ganale ko daat koy jébbal boppam ak mbiram ak daaraam ja euh, Cheikh Ibra defal ko ca ni ko loo ci loo ci namm mu ni ko wilaayatan te dóom mu ni ko defal nañ la ko Euh, sama baay sëñ Cheikh Lo nag daana wax ni welaayatan te doom kenn ko defal nañ la ko kooku abbiwu ko da ko am ndax sëñ Bay Lo dafa wax taalibe bi ni leen ba mu leen waxee lu ma wax ñu ni ko defal nañ la ko mu ne kon abbiwu ko da ko am kon kooku mooy Cheikh Babacar Lo mu mu sanc dëkk bi nag fii ci Thiès sanc fi ci atum 1892 1892 la la def gàddaayam gu mag ànd ak mboolem taalibeem yom yom àndaloon ñëw fii Thiès sanc fi ci ndigalal Cheikh Ibra euh, defe naa ni gàddaay googu bi at ma dellu see di 1992 téeméeri atam euh, téeméeri atam euh, sëñ Maxtaar Lo moomu moo dajeeg bis booba woote woon ko fii muy centenaire bu mag waaw loolu dama ko dama ko laltaayele waxtaan wi ngir ñu xam tuuti kan mooy sëñ Maxtaar Lo moom mooy juróom-benneelu xalifa Cheikh Babacar Lo daanaka di ki fi mujj ci ay doomam moom moo sos badar googu moo sos badar gi euh, euh, sëñ Moussa. jërëjëf euh, sëñ Motala ni nga tàmbalee jotaay bi ci kanamu Cheikh Mamadou Fadil Lo mi nga xalifa sëriñ Maxtaar Lo ak jëwriñam di topp ci moom sëriñ Saariw ak mboolem njaboot yi yëpp rek ñoo fi kon teew waaye kon di ñu ci gane àdduna sëriñ Muxtaar kon la gane àdduna ndax yaa ngi wax ne wéy jën mu tedd waa Gànjool ndax daa gane àdduna Gànjool <clears throat> ak dikkalu ci bu wax nga lan moo lan a mën ci xilaafa boobu ci boot bi bootoon njaboot dëkk bi itam te itam forees na wax ni <clears throat> mas naa dimbali dëkk bi yëpp doon secrétaire bi taxaw ci di fay bor yeeg di dimbali way néew di waaw sëñ Moussa jërëjëf sëriñ Maxtaar mi ngi ganee àdduna fii ci cees la ganee àdduna ci fi nga xam ni moom la sëñ Bayloo njëkkoon a dëkk ginnaaw bi mu ñëwee Thiès ci atum 1892. ku ne xam na ne bi mu ñëwee cees mu ngi dëkk fii kër maam alaaji boo rombee kër maam alaaji tuuti ci wetu pont bi euh, foofu la bi Ibra dëkkoon euh, sëñ sëñ Bayloo it fa la dëkkoon dëkk na fa ab diir 1892 ba 1914 Cheikh Ibra sëñ Bayloo fa la dëkk sëñ Bayloo it bi bi mu agsi ci 1900 1908 mooy daje ak gane àdduna sëñ Maxtaar Lo sëñ Maxtaar Lo mi ngi gane àdduna ci 1908 ci Thiès ci diggante ñaari wayjur muy Cheikh Ababacar Lo ak soxna Astuwad soxna Astuwad ñoom ñooy ay wayjuram juram sëñ maxtar bi euh, moom it mi ngi mi ngi jànge ci daara sëñ Mbaye Lo ji tudd Ndey ñu naan ko daara Ndey ci waajuram muy rakki sëñ Babacar Lo di sëñ Maxtaar Lo moo ko jàngal alxuraan ginnaaw bi mu ko jàngalee alxuraan ba noppi magam sëñ Abdoulahi Lo al Mubaarak moo ko tarbiya moo tarbiya sëñ Maxtaar Lo ginnaaw bi mu jàngee ci daara jooju ba noppi nekk na gosaas gosaas lu tarbiyoo ci magam Cheikh eh, Abdoulahi al Mubaarak Lo eh, gosaas kooku nekk na fa lu bëree bëri ci ndigalu ay magam ba bi mu amee ndigal ci sëriñ bi dellusiwaat Thiès fii nga xam ni mooy fi la way juróom wu baax bi Cheikh Babacar Lo tëdd te moom fi la gane woon àdduna bi mu ñëwee nag fii la nekkee xalifab Cheikh Babacar Lo ci 1982 waaye ginnaaw bi bi nga xamee ni nekk na xalifab Cheikh Babacar Lo nag euh, liggéey yu bëree bëree bëri yoo xam ni moom Cheikh Cheikh Makhtar Lo diirub li mu nekk xalifa euh, daje na ak ay liggéey yu mag muy chantier yu mag ci yoonu ci yoonu murit euh, liggéey euh, biñ ci mën a liñ ci mën a tudd bari na mën nañ koo tàmbalee ci kër sëñ Saliou Mbacke gi nga xam ne doon nañ ko tabax te sëñ Abdou Lahat digle woon ko ñu koy tabax sëñ Makhtar nekkoon fa ànd fa ak sëñ Modou euh, sëñ sëñ sëñ Abdou Chakor Fall sëñ Modou Aminta Fall ñu yoroon liggéey ba. bi ñëwee ba 1983 it ànd naa njabootu Cheikh Babacar Lo gépp dem Touba Linguère. ci ndigalal Cheikh Abdou Sakor Fall xalifab Cheikh Ibra Fall euh, liggéey fa liggéey yu mag a mag ba nawet ba jeex ñu dellu siwaat def liggéey bi nga xam ne sëñ Abdou joxoon na leen ko muy Touba Darma Touba Touba Touba Darma moom mooy mbojj mi sëñ Abdou Lahad joxe woon nga xam ne ginnaaw sëñ Modou Aminta bi mu toogee xalifa liggéey boobu la mooy liggéey bi njëkk a liggéeyal sëñ sëñ sëñ Matar moo jiite woon njabootu Cheikh Babacar kërloo demoon ca liggéey booba ginnaaw gi nekk na ci ay liggéey yu bëree bëri lu mel ne kër sëñ Abdou Lahat gi ñu tabax ci ndaamaatu mu nekkoon foofu tamit jiite woon njabootu Cheikh Babacar Lo yoroon liggéey ba ba ci 1990 ca euh, sëñ Abdou sëñ ab sëñ sëñ Abdoul Xaadir kër gi nga xam ni sëñ Modou Amin Dafaal doon na ko liggéeyal sëñ Matar nekkoon ca jëwriñ àndoon ak njabootu Cheikh Babacar kërloo gépp ñu nekkoon ca liggéey boobay ba ci quatre 1991 nag bi nga xamante ni euh, sëñ Saliou Mbacké toog na nekk xalifa sëñ Touba euh, sëñ Matar Lo defe naa ni xel koom yi ëpp ci liggéeyu sëñ Saliou Mbacké moom moo moo ko jiite xam naa loolu dina dinañ ci ñëwaat mu gën a yaatu dinañ ci ñëwaat mu gën a yaatu ndax euh, la ko dagge 1990 1990 mooy at mi nga xam ni ci la sëñ Saliou Mbacké toog xalifa mooy at mi at mi dëppoo it nag ak sëñ sëñ Maxtaar Lo tàmbali liggéeyu badar gi liggéeyu badar gi ñuy bëgg waxtaane ca at moomee la toog 1990 waaw 1990 ci la toog ba yàgg mu mu ubbi bunt xamal ni euh, woo mag ñëpp ñu toog mu ni dafa am lu ma bëggoon ñu waxtaane ko ndax ñun Baay Faal yi kat dañ ne waa ahlu badar ñooy suñuy nawle Euh, tey li tax ñu ni ñooy suñu nawle dañoo daje ci buntub jaayante ndax keroog yonent bi sallallahu alayhi ba muy waajal badar ak xare ba dafa lal mbalaanam daan ni na ñëpp ñëw jaayante ak suñu borom. waaw ah, sax xanaa si ni mooy pañ bi war a gën a yaatu ci waxtaan bi waaye nag jot nga noo tënkal eh, gën àdduna ak sëñ Maxtaar loolu moom eh, kër El Hadj Ahmad Baro la ñëwoon foofu la gën a àdduna ginnaaw gàddaay yooyu juróom tedd woo wax na ni itam Gosaas la jaar ginnaaw bu mu jaaree ndey jàng fa mboolem luy xam-xam te ndey itam ci daare waajur la bokkoon waaye dañuy dégg itam ñu naan ko si Maxtaar Lo saañ yi itam mel na kon si mbir dafa am eh, loolu li ma ma ciy leeral maanaam eh, sëñ dafa am ñaari maxtaar ñaari maxtaar ñun ñu naan ko maxtaar ëwël ak saani amna ñu leen ñaan leen Matar fa sen soxna mat sëñ Matar Faatu job ak sëñ Matar Astuwad ñaani ñaari maxtaar yoy nak yalla dafa def euh liñ magante wul waye it seeni khalifa yi tegaloo wa tok nañ khalifa sëñ beylo tok nañ jotay sëñ beylo ba nopi ñu ñu amu xarito la manam lo xam dal sëñ mam maam sen Bay moo ko seen diggante moko defone seen diggante ndax Euh, nangoo nañ ci kilifa yi ñu ni sëriñ Mbaye Lo fonkoon na leen lool waaw te daana wax sax mag ñi ni sama ñaari mataar yi dee leen ma ci moytu ak saa sama ñaari mataar yi ku leen bégal yàlla bég ci yow <laughs> waaw <laughs> kon loolu ñoom ñu am cër lañ ci Cheikh kër Lo bu baax a baax a baax kon lool ñoom loolu laay dikk ci ci ci ci ñoom ñaar ñoom waaw waaw sëñ Matar sëñ Matar Fa Diop moo féete woon mag waaw sëñ Matar Fa Diop euh, ak njabootam ñu ngi fi mooy Baye seexloo Lo Kumba ak ñoom sëñ Baye Moralo ak sëñ ay ay njabootam. mooy sëñ Matar la mooy sëñ waaw. am na ku mu ko na ku mu ku mu bokkaloon way jur nag. ñaari way jur ki mu bokkaloon ñaari way jur wu góor gu jigéen mooy sëñ Morlo wàll yu fàng waaw sëñ Morlo wàll yu fàng sëñ sëñ Maxtaar Lo moo topp ci moom di tofoom amoon nañuy mag nag waaye mag ñooñu ay ay ay jigéen lañu woon waaw amoon nañ ñaari mag yu jigéen waaye ñoom ñoo doon ñoo ñu góor ñi toppante waaw sëñ sëñ sëñ Mor Lo wàllu fang mais euh, dañu wax nañ ci taarix ni mais gane àdduna 1904 moom it foofu la gane àdduna ci kër moom alaaji waaw ñu fàttali ñi dab jotaay bi yëpp yéen a ngi ci wàccaayu Badar di jotaay bi nga xam ne ñu ngi koy amalee fii kër sëriñ Mouhamadou Fadil Lo ak mboolem njaboot bi yëpp ngeen waajalee ko bis boobu ak dellusiwaat ci taarixu bis boobu ndax day bis boo xam si lislaam bi yëpp ko bokk te mel na ni itam ku xam lan mooy cosaan bis bi diñ ko gën a fonk tax nag tey ji sëñ bi ànd ak waa Thiès Média ak mbokki taalibe yëpp dëkkandoo yi ngir indi jotaay boo xam ne jotaay bu xam ne fii badal jaar ba ak si fii mu toll nii la bis boobu itam ñuy waajal le 28 mars war a doon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor waroon na ko itam alxames lay doon war a ci weeru tubaab 28 mars ñu toog si moo taaraloo ngir ñu dellu si ci ci moo tax ginnaaw bi ñuy waxee nag euh, gën a àdduna ak sëñ bu tedd boobu xam ni mooy sëriñ Maxtaar waaye kon nan la ko màggalu Badar dikkee ak diggante ma waa lu Badar loolu ci mën a dellu si leen bis bu mel nii ba mu am euh, xam ne ñu ci nekkam ak lenn ci ginnaawam. waaw nga euh, ku ne xam na ne nag ab Baye Fall moom moom Baye Fall moom. digganteem ak ahlu badar sorewul ndax Baye Fall ku ko xam xam ko ci jëf ak njàmbaar ak liggéeyal yàlla te ñoom ahlu badrinil kiram ca lool rek lañ nekkoon nag ba ba ba làq ngërëm yu mag yenu làq yàlla yàlla suñ borom taas ci barke sëñ Tuubaa ci seen i barke ñoom ñëpp rek ci barke bis bi waaye sëñ Maxtaar euh, comme ni ma la ko waxee ci njàlbeen bi mu dee ba atuk mille mille neuf cent quatre vingt ci la woo njaboot gi yëpp rek ngir bëgg leen a jëfloo ci yoonu yàlla bëgg leen a jëfloo googu nag taxoon na mu ni leen euh, bi mu waxee waxu waxu badar ni a ah, ñoom kat ahlu badar kuñ ni kuñ ni daal diw mooy seen nawle ndax yéen a daje ci bintub jaayante bintu bis boobu bu jotee war war nga ko fàttaliku waaye ku ne nit ñi nag ñu bari jàppoon nañ ni nu ne la koy fàttalikoo waaye keroog dafa jël mbalaanam daat koy lal daal ne na ñëpp ñëw jaayante daal di jël lépp lu mu yoroon ci xaalis ak ay yëreem yu gën a baax daat def daat koy teg ni jaayante naa ko yàlla daal ni képp koo xam ni danga yaakaar Cheikh Babacar Lo wala nga yaakaar Cheikh Ibra Fall wala nga di jullit te bëgg a jaayante te bëgg la nga xam ne xéewal ya sunu borom sedd la ca xéewal yi ahlu badar ya na nga ñëw jaayante fii keroog la kilifa yëpp dal di jaayante ak moom jaayante yàlla waaw ndax euh, ku ne xam na ni waa ahlu badrin kiram ñoo taxoon suñu borom ni inna lasina yu bàyyi xunaka innama yu bàyyi xun allah yadullah fawqa aydihim waaw loolu euh, yonente bi ba muy woote jaayante ga euh, sunu borom ma ko ca fekk ne ko képp ku jaayanteeg yow jaayanteeg yow man yàlla lay jaayanteel waaye a xam ne yadullah fawqa aydihim ma sam loxob sunu borom moo kawe seeni loxo waaye xéewal yooyu nag moom lañu ñu sëñ maxtaar bëggaloon bañ bañ ca at mooma ca la taxawal jaayante gi moom badar gi woote na ko waaye woote gi lépp da ko woote ci jaayante euh, def ci nag loo xam ni def na ci alalam laaj bépp jullit mu defal mu def ci sa alal te lu ko ci waaye defal mu yóbbul la ko fu yàq agul waaw ndax bis bi bu jotee dana ci jàng ay alxuraan ci lim yu takku dañ ci tudd yàlla sikar jàng ci xasiday sëriñ Touba def ci ay bernde bu noppee lépp lum ca dajale da koy jël dem takk ko jébbal ko ki fi nekkal Cheikh Ibra Fall kooka it daat koy jébbal ki fi nekkal sëriñ Touba ndax mën nañ cee nettali loo xam ni sunu borom defal nañu taw tawféex ba euh, yàlla def na ni ñun ñi ak li ñuy néew néew yi at euh, bañ koy sos fekke nañ ko te am na luñ ca ko ndax defe naa ni ñoo ci njëkk a jaayante euh, carnet ba bañ ko doon bindee man mii la ko joxoon di ko di ma ko bindaloo 1990 ma di ko bindal di ko bindal ba Baye Sëñ Mor Lo ñëw Baye Sëñ Mor nekkoon fii délégué de bi mu ñëwee lan ma joxal sa Baye Sëñ Mor ma jox Baye Sëñ Mor mu àggale liggéey ba waaye kon loolu man man fàttaliku naa ko. ginnaaw bi nga xamante ni nag liggéey booba yemb na sëñ Modou Fallilou Lo mii nga xam ni mooy xali moo di xalifaam tey ak sëriñ Cheikh Lo mi fi nekkoon xalifa Cheikh Babacar Lo di doomam ñooñu la joxoon liggéey bi ngir ñu yóbbu ko ngir ñu yóbbu ko ban ko ban ban ban ko yóbbee sëñ bi nettali na ma sëñ bi sëñ Modou mi mi ngi may nettali bu yàggul rek mi ma koy nettaliwaat defe naa ni waru warugul am ñetti fan bi ma koy nettaliwaat ak léegi ni ma keroog bi ñu àggee ci sëñ Modou Aminta euh, dafa laaj neen ah euh, sëñ Cheikh mu ne waaw mu ne ko faal mu ne ko euh, sabaay lu lu jublu ci ci li mu ni ko ah man de xaw ma lu mu ci jublu waaye am na nu ma ko teg mu ni ko lan mu ni ko xerew ñëw rëbbin mu ni ko xerew ñëw rëbbin moom mooy lan mu ni comme saa su nekk mi ngi bëgg jëfloo nit ñi ci yoonu yàlla te soobu nañ ci ndogu yi dem na ba gis ni ñu ngi bëgg a toqi mu indil leen weneen xeetu liggéeyin woo xam ne ñëpp daan ci gën a sawar moo tax mu daat koy def ñu dajale ko nee na keroog sëñ Modou Aminta dafa dajalewaat liggéey ba yëpp daal leen di booleeg sëñ Moustapha Cheikh moom sëñ Cheikh Fall Khady Gueye ñu ànd ak moom bañ demee ñu dem ca sëñ Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu daal koy jébbal liggéey ba nee na keroog bi ñu ñëwee ñu ngi toog fekk sëñ Saliou Mbacké toog ci pilaan bi euh, féete jublu penku sëñ Moussa sëñ Moustapha Saliou toog ci wetam basangu romb jaan gi daal di daal di jublu euh, bëj Saliou euh, keroog sëñ Saliou Mbacké mu baax ma radiyallaahu anhu nee na keroog dafa xool liggéey ba ñu daan leen dinañ leen dimbali dees na leen dimbali daan ni daan ñi doon jëf-jëf ji dañ leen dimbali waaw dimbal loolu nag moom la sëñ bi yéene mboolem jullit ñi ak mboolem taalibe yi moo tax liggéey boobu mu mu mu mu mu taxawaloon ko eh, de defe naa ni nag boobu ba léegi liggéey boobu mi ngi dox liggéey badar googu mi ngi dox te saa su nekk mu ngi gën di jëm ca kanam di gëna jëm kanam. macha allah jërëjëf suñu taala kon ci taarix ndax amna ko xamni mo ne moo njëkk bi ci badal ci lu xam wala nak eh, ci li histoire lu mom suñu motaal mom moko jëk def di jëlé tam ndax doxalin bi ñu koy defee maanaam moo ko jàngale moo ko jàngale mel na ni loolu loo mën a delsiwaat ci bis bu njëkk boba ci mbir mi lu beesoon la ci nit ci wa ci tarikh nak euh ñun xamuñu ko ko jëk a tàmbali ak ko ko jëk wota woote loolu moom ci moom la njëkk a déggee ku woote màggalu badar ginnaaw bi mu ko wootee nag ba waxta ba tàmbalee siiw woote yi nag bari na waaye euh, sëñ Maxtaar daal moom lañ xam ci ki njëkk a sos badar euh, di ko def di ko di ko màggal tey it ni mu koy màggale moom ab liggéey rek la ci jublu liggéeyal yàlla ndax lépp lu ci lu ci ñëw lum ci dajale da koy jël jébbalaat ko ki fi nekkal sëñ tubaa ki fi nekkal Cheikh Ibra mu jébbal ki fi nekkal sëñ tubaa mu doon liggéey boo xam ni eh, liggéey bu yegg la liggéey bu egg la ku ku ci def sab dërëm mu àggaleel la ko fu yàq yëgul maam moom noonu la koy màggale dana ci def nag ay kaamil alxuraan yu bare bari ak i ak i xasida comme ni ma ko waxee ci njàlbeen eh, ñaanale ko waa ahlu badar ak mboolem taalibe yi ak mboolem réew mi yëpp dana dana koy def ci bis boobu def ci bernde saanu waaw barkeel yi itam di yére ndimo yi nga xam ne nit ñi ñu koy indi mel ne loolu itam cosaan la ci woon waaw te mel ne ni nga ko waxee woon ci gi baax bëgg na jëfloo doomu aadama yi ñuy tuddee mooy wodd sa mbokkum bi jaayanteeg suñu borom ci jël si yére bu gàjjaru joxe ko loolu itam cosaan la daa mel ne waaw loolu tamit cosaan la ci badat ndax euh, sëriñ Maxtaar Lo mu baax ma yàlla nañ ko yàlla fayal ndax lépp loo xam ni moom gis na ni sosoon na ko rek wala mu def ko loola doon na njariñ bu baax a baax a baax ndax euh, yére yooyu da ko daan joxe da daan wax nag bu ma kenn jox yére bu màgget bu ma kenn ku may jox nag ma jox lu bees wala lu rafet ndax ña ma koy jox bu ko masaana joxe ñam koy jox euh, sëñ bi da sëñ Saaliw daana jël yére yooyu yi ci yu ji yu jigéen yi jébbalaat ko njabootu Cheikh Ibrahima Fall ku jigéen gi fi newoon yu góor yi mu jël ko yóbbu ko xel ko mu jox ko ca dongay daara yi fi nekkoon moo tax sëñ bi moom daaw ci laaj yére bu màgget yëre bu bees rek la la la la ci daan itteewoo waaw waaw euh, la ci daan itteewoo moo tax liggéey boobu liggéey boobu it ba léegi nag mi ngi mi ngi dox mi ngi dox na ko sëñ bi daan defee rek lañ koy defe waaye nag dafa gën a yokk ndax euh, sëñ Maxtaar tàmbali na ko di ko def 1990 euh, la ko tàmbali di ko def ba quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-huit mooy at mi nga xam ni ci la euh, wuy ji boromam mm, ci la wuy ji boromam. waaw yoo xam ni def na ko. ginnaaw gi sëñ Mame Mbaye euh, euh, taawam moom moom it di ko def moom sëñ Mame moom moom moo jël liggéey booba na ko sëñ Matar daa defee di ko di ko def ba 1988 moom it. suñ borom daa moom it mu daal di wuy ji boromam. sëñ deux minutes waaw deux la moom it sëñ sëñ Modou Fallil loo nag ñaan la fi yàgg te suñ borom bàyyi ko bi liggéey boobu depuis 2008 ba léegi moom mooy taxaw liggéey bu ànd koog njaboot gi yëpp waaw. Ah, seeru nañu léegi ci soxna yi nga xam ni <coughs> ñooy ahlu rijal xidma ni amee itam misaal xidma gis na ñoom ñu yëkkati alxames yoo xam te alxames yi badar badar la ngir bëgg yiw yi yaatu nit ñëpp jot si tax ñuy dajale seeni juróom seeni fukki dërëm ko romb leget gi rek teg te dara yooyu yëpp ci kon li mu doon jàngale dafa mel ne mokk na ci anamu rëbb yi ñu bëgg mu bëgg nit ñëpp jariñu waaw waaw waaw jërëjëf jërëjëf loolu Moussa waaw loolu lu am solo la ndax sëñ Maxtaar euh, bi yàlla defee mu nekk fi nekk xalifa sëñ Mbay maam sëñ Mbay dafa xiirtal njaboot gi yëpp muy képp ku wékku sëñ Mbay loo ba ci xale yi gën a tuut féete tànk sax da leen def xiirtal ci jàng alxuraan ak liggéey ak joxe addiya waaw ci jàng alxuraan ak liggéey ak joxe addiya ba tax na tuut tànk yi ñoom sëñ Fàllu ñi ak ñëpp da leen wutaloon ab daayira tudda leen xadaa ihul fadaa ili mag ñi muutal leen daara tudda leen safinatul amaan soxna yi mu yar leen xiirtal leen ci liggéey ba tax na soxna yi euh, ñu ngi ñoom am nañ leget goo xam ne alxames gu jot dañuy def jaayante soxna ngañ gën bàyyi faalu suñ mataarloo moo moo jiite liggéey bi mooy jëwriñu liggéey bi euh, ñoom sax tey ji lañ war a jébbale seen i addiya tey ji lañ war a jébbale seen i ci kanamu sëriñ bi waaw kon euh, sëñ sëñ bi moom dafa xamoon ni rek loolu rek mooy jariñ ab taalibe mooy liggéey ak jaamu yàlla ak joxe addi moo tax mu xitaloon ci njaboot gi yëpp nag ci loolu moo ba tax na soxna yi ñoom defe naa ni ak tuut tànk yeeg ñëpp rijaalullahi yëpp mokkal nañ liggéey boobu nag mokkal nañ liggéey boobu saa su nekk ñu ngi koy waajal alxamis bu nekk ñuy jaayante. waaw jërëjëf sëñ Matar xam naa kon yéen ñii seetaan mbokki téléspectateurs yi. fii ñuy topp Thiès Média xam ngeen ni kon detaay ba am solo ngi ni ci badal ji ngeen ñu xam cosaan yi lan la ndike yo day am lënt ci xol ci xelu nit ñi waaye nitu yalla yoy nga xam ne ñoo taxaw taxawaay ay lamp ñoo koy leeral ci nam gi na namoon a bokk ci waa badal ba kenn ku nek ñun bo fekkee won yonent bi guddik fukki fa nak juroom ñaar wala bëccëg fukki fa nak juroom ñaar dang ko jappalé ci la nga man mo xam sa alal la ba sa katam suñu waxtaan loolu nag wax ni ñooñ kat ñooy royukaay yu mag yi ci ñoom la ñuy royee passif waaye nag yàlla man jaayante loolu dugg fi organiser bis bu mel boo xam ni ñii jël seen i dërëm mën caa tabal mu jëriñ leen dara ñii kenn ku nekk ni sa ni sa yitte toll ak kenn ku nekk ni sa amam toll nga jaayante ko sa borom ngir dëggalee ko sa wax jooju kon mel na ne nag kon si motala euh, dañuy jàll si ci beneen poñ bi muy wàllu woote bi euh, ana ñan ngeen di woote bi xam naa sax ginnaaw njabootu lislaam bi yëpp nga xam ne moom woo nañ leen ci waaye nag du ñàkk ñoo xam ci dañ leen mën a jàppale rek ñu yóbbaale ñu si des ñëpp waaw jërëjëf sëñ Matar kon euh, euh, bis boobu kon mi ngi sëñ bi nee na sëñ Modou Fallilou Lo xalifa Cheikh Ababacar Lo moo koy woote di ko taxawu ci ndégalal kilifaam sëñ Amdi Moustapha Lo xalifa Cheikh Babacar Lo waaw xalif sëñ Amdi Moussa Lo xalifam Cheikh Babacar Lo ak ci ndigalam sëñ Amdi Modou Moussa Fall sëñ am Amdi Moussa Fall ak Modou Mbenda Fall xalifam maam Cheikh Ibrahima Fall ak ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général di di Murit ci la ko sëñ bi di taxawale ànd kook njaboot gi yëpp loolu nag bis boobu nag sëñ bi mi ngi ko yëgal ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn nee na nag muy jigal muy muy muy muy muy muy jiital ci yëgle bi waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñi nga xam ni ñoo ko fi ak ñi ko fi nekkal tàmbalee ko ci sëñ Moussa Fall ak sëñ Cheikh Gunda Fall ak sëñ Assane Fall moom sëñ Cheikh Fall bàyyib góor sëñ bi nee na mi ngi leen ko yëgal sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Aminata Fall ak sëñ rakkam sëriñ Basirou Fall moom ak sëñ maam seex Fall moom euh, sëñ Modou Ablaye Fall Ndam sëñ Ablaye Fall Ndam sëñ Modou Ablaye Fall Ndam sëñ Fallou Fall moom sëñ Cheikhouna Fall sëñ Fallou Fall moom sëñ Cheikhouna Fall mi ngi koy yëgal ñépp di ko mboolem ku sant Fall te nekk Cheikh Ibra sëñ bi mi ngi la ko yëgal di leen jiital ci woote bi ak yëgle bi waaw ak sëñ Mbacke Fall moom Cheikh Modou Moussa Fall. sëñ bi nee na mi ngi koy mi ngi koy yëgal bis bi di di leen ko yëgal mu ni mi ngi koy yëgal tamit sëñ Cheikh Touré xalifa sëñ Saliou ture sëñ bi nee na mi ngi koy yëgal di wóllareem nee na mi ngi koy yëgal bis bi bu baax fàttewul fàttewul kenn mu mu ni tamit mi ngi koy yëgal waa kër Cheikh kër loo yëpp nag mboolem ku mbokkal Cheikh kër loo tàmbalee ko sëñ am di Lo sëriñ Saliou Ngondaloo mu ni moom kooku mooy borom bis bi nee na mi ngi ko mi ngi mi ngi leen ko jégal sëñ Saliou Ngundaloo sëñ Abdoulaye Lo ak sëñ Cheikh Lo moom moom sëñ Makhtar Lo Fa waaw ah, waaw ak sëñ Abdoulaye Lo ñoom ñëpp mi ngi leen ko yëgal nee na sëñ bi mi ngi ko yëgal waa Gosaas waa waa sëñ Abdoulaye Lo ak ñëpp mi ngi leen ko yëgal waa waa sëñ Abdoulaye Lo ñoom mi ngi leen ko yëgal ak waa Njaareem Cheikh Moussa Lo Gosaas ak Njaareem. ñoom mi nee na mi mi ngi leen ko yëgal bàyyiwul kenn nee na mi ngi ko yëgal waa kër sëñ Mor Ndiaye Daabaay ak waa kër sëñ Alaaji Mouhamadou Ndiagane nee na mi ngi mi mi ngi leen ko yëgal yëpp mi ngi ko yëgal sëriñ asankan Kane di wóllëreem ca Nasru nee na mi ngi ko koy mi ngi ko yëgal bis bi di ko fàttali ndax ñoo ko mas di ànd saa su nekk mi ngi ko yëgal sëñ Xaadim Lo sëñ Xaadim Lo Gaydel moom it ñu bokk bis bi mu ni min ko mi ngi ko koy yëgal nee na mi ngi ko yëgal mbooleem imaam yi ci dëkk bi yëpp tàmbalee ko ci sëñ Fallou imaam sëñ Fallou ak mbooleem imaam yi ci dëkk bi yëpp sëñ Boubacar Diop ñëpp nee na sëñ bi ne na bàyyiwul kenn mi ngi koy yëgal ñëpp mi ngi koy yëgal it autorités yi mboolem autorités yi euh, yëpp mi ngi leen ko yëgal bàyyiwul kenn politicien administration mu ni bawul kenn mi ngi ko tàmbalee nag ci gouverneur de la région le préfet département avec le préfet sous-préfet de Thiès Nord mu ni mi ngi leen ko yëgal mi ko yëgal monsieur le maire Babacar Diop ak monsieur le maire Birame Souley Diop ak monsieur le maire Djité ak monsieur le maire euh, euh, Diagne maître maître Diagne nee na responsable politique sëñ Cheikh Gaye responsable politik di ko yëgal Mor Ndiaye mbay Mor Ndiaye mbay ñi nga xam ni ñoom ñoom ñoo mbokk dëkk bi doon ay mbokkam mu ni sëñ bi nee na ñoom ñëpp bàyyiwul kenn mu ngi ko yëgal ñëpp di ko yëgal fépp nee na mi ngi ko yëgal mboolem daaira yi nag daaira yi mu ngi leen ko yëgal di ko yëgal sëñ Boubacar Diop ak sëñ Abdou Xoll sëñ Abdou xool ak mbooleem daayira yi yu ci dëkk bi daayira sikar yi daayira waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall waa kër sëñ Cheikh Fall Roqeya waa waa kër Kawsaras waa kër sëñ Fallu Ñaaña nee na mi ngi koy yëgal ñëpp ak waa kër sëñ Cheikh Ngunda Fall. waaw mel na ni comme sëñ Moutara eh, yëgle bi yaatu na lool waaye nga des ci tuuti rek ci programme bi ndax rek ne weeru koor la nga wax ne incha allah bis bi yëpp na lay tëddee eh, ci wàllu suba gi ba ngoon gi ak li ci war a waaw waaw Moussa waaw jërëjëf kon programme bi ni muy tëddee mooy ginnaaw bi jàngee alxuraan euh, ba bëccëg ba deux heures sëñ Moussa Wade mooy tàmbali waxtaan wi euh, bu tàmbalee waxtaan wi bu àggalee euh, sëriñ Abdou Ndiaye sëñ Abdou Ndiaye Mbour xel koom mooy jël sëñ Abdou bu waxtaanee ba noppi kii jël mooy sëñ Jibi Mbeng sëñ Jibi Mbeng dina waxtaan waaye nag dem Mandiaye dem ku ñuy wax Mandiaye di doomi sëriñ Mortala Fall euh, waajuram bokkoon ci ñi nga xam ni euh, ñoom la sëñ Matar Lo joxoon liggéeyu badar gi ba mu koy tàmbali mu ko mu koy liggéey ba léegi euh, yàlla na ko suñu borom dolli yërmande ak njéggal baay Mortala Fall tey jii Mandiaye moom moo ko wut ci liggéey boobu muy liggéeyu jaayante bi jaayante bi nag moom la ñuy def ba ndogu jot bu ndogoo ba noppi door duggaat nag ci programme bi sëñ Lamp Ndiaye ak mooy yor njàngum xasida mi sëñ Lamp Ndiaye ak ak sëñ Basiru xool ñoom ñoo yor njàngum xasida mi sëñ Cheikh Kayre sëñ Cheikh Kayre ñoom ñoo yor njàngum xasida mi waaw Sikrulaay daayira Sikrulaay Touba sëñ Cheikh ndooy ak fédération maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom ñooy fanaane bis bi ñooy fanaan ñooy fanaane bis kon bis bi noonu la bu fajaree nag bu ñaanee buñ ñaanee sikar si euh, sëñ bi daal di daal di ñaan ñu delluwaat ci itte yi dafa programme bi noonu lay tëddee waaw sëñ bi nee na mi ngi koy yëgal ñëpp nag bàyyiwul ñenn mu ngi yëgal waa Ndakaaru waa Touba waa njaarim ak waa Mbuur campement Gosaas Daaru Sànd Daaru Cubeen Xombol ak Daaray Mandangri sëñ bi nee na mi ngi leen di yëgal yëpp ak mboolem réew mi yëpp bàyyiwul fenn bàyyiwul kenn ndax bis bi bisub islaam yëpp la nee na mi ngi ci woo ñëpp di ci ñaanal ñëpp tawféex barke borom Tuubaa barke maam Cheikh Ibra Fall. jërë ngeen jëf mbokki jullit mbokki taalibe yi kon jotaay boobu lañ leen amaloon fii ci Loyeen kër Cheikh Mamadou Fadil bii di sëñ Mokhtar Lo ngir waxtaan yi bisu barat yi ñu dëgmal ren di 34e édition. war a doon le 28 mars alxamis fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor suñu motaale itam di gënee lu yaatu ci bis boobu lan la wundu lan mooy cëslaay gi xeetu màggali ñu tam kan moo ko sosoon ak ni ñu ko tëralee woon muy Serigne Makhtar Lo di màggalu jaayante kon nag li tax suñ bi def ko nii mooy njëriñ lu yaat la loo xam ci képp koo xam ne na ko nii nga xam ne siñ bi tàllal na ko ci loxo tey wax ne bis boobu bisu jaayante la bisu feddliwaat pas-pas la bisu yokkaat ak takku la ak dogu kon noo ngi sant baax mboolem ñi nga xam ne si teewoon nañ ci jotaay bi yëpp sëriñ Saliou Lo ci wàllu soxna yi sunu bàjjen soxna maam Seynabou Lo ak ci wàllu doom yi buñ ci tuddee soxna Fallou dana yóbbaale mboolem ñi nga xam si yëpp ñooy njaboot bi. waaw kon si motaale yan kàddu ngay tëjee jotaay bi. waaw xanaa di sant ñëpp rek di sant sëriñ bi bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne euh, jox nañu ko. Euh, tey sant mbooleem mbokki taalibe yëpp yiñ ko àndal mu tàmbalee ko ci kuréelu soxna yi te soxna ngañ geen jiite leen di sant sëñ Saliou Lo di rakk sëñ bi di jëwrinam di suñu jëwrin ñun ak mbooleem ñi ma àndal liggéey bi sëñ Mantaloo euh, sëñ Mamloo ak ñoom sëñ Falluloo sëñ Baye Salloo ba ak waa daayira Safinatul Amaan bi nga xam ni ñooy wàkk kër Cheikh Babacar nga xam ne ñoom ñoo yor organisation bis bi bis bi ñoom ñoo yor organisation bi ñoo yor togg yi ñoo yor accueil bi ñoo yor baas yi ñoo yor lépp ñoom maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen wax ñoom liggéey bi seen liggéey la euh, di sant mbooleem waa daara ji yëpp ak alxuraan yi ak sëñ ñoom sëñ Mamataar Gueye ak mbooleem ñeen ko àndal ak mbooleem soxna yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci liggéey bi soxna Jeefal ak euh, soxna Mbaaca Wàdd soxna Fallo di sunu di sunu di sunu jigéen ak ak mboolem rek ñin àndal ci liggéey bi yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo ñëpp nag ci bis bi di ñaan suñu borom yóbbu ñu ci ak jàmm eh, di sant équipe technique bi it eh, ak waa Thiès Média yëpp sëñ Abdou Mbacke Sow ak mboolem équipe technique am bi ñu àndal ak waa Thiès Média yëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal ngeen <coughs> jërë ngeen jëf jotaay boobu leen amaloon di sant nag eh, ni ko waxee rek sëñ Abdou Mbacke Sow caméraman bi ak sëñ bi liggéey bii ngeen seeru nag te niñ ko waxee woon rek eh, soxnay kër gi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ Maxtaar liggéey bi te mokkal ko nam ko jàngalee woon ñoo sosoon liggéey bu am solo muy alxamisu badar yi mu doon àddiyee yoo xam ni dañ ko utal leget goo xam ni dañuy xëy rek génn ko njabootu kër gi nag jiitu ci dëkkandoo yi wóllëre yi am di jàmm yi ak way bëgg lu baax yëpp ñu koy dajale nag bu bis bi dikkee ñu takkatoo nag ñëw dugal ko ci biir bis bi eh, kii ko jiite mooy sunu wajuru tedd yi soxna Ngagne Diène ñoom la ñuy jox nag kàddu gi ñu wax liggéey bii ak ñeen ko àndaloon ak ni mu doxee jébbale itam addee ji eh, ki nga xam si mooy ma Mahamadou Fadil Lo mi toog jotaayub Serigne Makhtar Lo yàlla na sunu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko kon ñu jox sunu wajur soxna Ngagne kàddu gi. maa ziaré ñep ñëpp wax ji nag góoman naa a guddal ndax nak xol bu sédé borom dootu mëna a wax taman wóor na man sama xol sédd ni maa ngi sant yalla baax baax di jël ñent bi di sant señ mu taarloo lo baax baax diko ñaan yalla yok ay léram ndax liggéey bi ci tàmbali bala bokkon kon bu ma fekkee bu señ maam bay fekkee bu señ Maodo loo war na maa santaat baax baax baax sant nag sëñ Modou bi ñuy gunge ba ñu egsi fii te yàqaluñu dara waaw fa ñu bàyyam jëme woon rek foo ko raw la ñu jëme foo ko raw fa la ñu jëme la ko sëñ Talla waxoon kër sëñ Mame Mbaye ñu bee baare bu ba tey dara dañu dara dañu ci tey la ñu gën a jëmale ci yàlla waaw ndax sëñ Matar moom sasee bajar ji dañu yéen soxna yi yaag Awa Mbaye soxna maam say mii kat dee leen wut géré yi may jox waa kër maam Serapha jigéen ñi ràññee woon naa ci ku ñuy wax soxna Picc Faal mu ne dee leen joxe yére yooyu yéen deen ko wut dem nag am na at moo xam Dakar laa dem yomb yére bees tàq nangu ma koo sol mu ñëwee dama ko teg daal ni badal ji ñëw na dama koy koy dama koy joxe ndax ndigal loolu muñ jigoon sëñ Maam Mbay ne fi ñuy laaj suñ kër rek la ñu yemoon dan daan nat waaye ma toog ba jëmbi jamono yàlla ni man mel ni yàllaa ma ko wax ma ne man daal dootuma nat di topp kenn bor damay laaj addee ndax addee kat am na lu ma sëñ Mataar waxoon non na gungé nit ba bir bàmmeel di la kon dootuma natt kenn di dila kenn ba may kenn bor kuma jox jouni yéna nga témé junni jouni kuma jox témé jouni yéna nga million kon dootuma topati kenn bor damay laaj addé rek limay jëk def nak moy balwaq ñepp nak nga xamni ni ñom ñoom laay laaj na wa kër gi nak ndax ñi ci koñ bi sax nañ ma romb jox ma way wa kër gi mom duma leen tek défense mom taxaw leen tém nak ta méré wuñuma xass ñuma ci téguñuma ci benn baat dama leen fekk ba seen biiri yi nekk leen du ngeen nelaw te dañuy génn jox ma ba dama leen di wax bis bu ne dañuy laaj addee ba alxames dañuy laaj jaayante kon ñun duñ bàyyi benn bis ñuy ñaan nag sama borom guddal fanam moom mi nag ak jullit bu ko ko a ak njaboot suñ ma taarloo gépp nag jé di ko jëttige ci sëñ maam maam soxna maam say loomi waaw ndax moom it yàqaloon dara ñetti alxames yi rek dama ne bii damay laaj marché laaj waa marché alxames del si ma ne soxna Mbacke ñëwal yaay deuxième jëwrin mu ñëw laaj dugal ci xarala alxames di del si man ko soxna maam sax yow yaay ñaanal waa marché bi waa marché bi nangu ñaan ki bu baax a baax kon maa ngi sant yàlla ci xel moom mësuñu taarloo dénkoon nag joge jógegu fi ma ko ci ñaan yàlla nag moom mii di seex ma taarloo nag xeebu ma ko ci mu ñaanal ma ko te ñaanal ko ñi ma ko àndal ñëpp nag wax ji sax mënu ma koo guddal nag ndax sama xol sori na dem na fa sori nag may ñaan rek wax ni dama ko guddal dekkando yi fi tok ak ñi fi togul ñi ma ngi leen di sante di leen gëreem di ñaanal ñepp nak di sante wa marché ba ñuy faral dem alxames yeen say yi bu ñu jubee badar ji dinañ fa taxaw ñom ñepp dañu am yene ci ñun bu ñu xëy si waatee àjjuma dañu daan lagat ga ma lagat ga rek lañ koy indi ñetti alxames rek lañu màjj almarché lis dee fi yow la yem si kër gi ma ngi balu ak ñepp nak di ma leen di jité lepp nak ma ngi leen di balu ak wax deug yalla waaw dama xol rek li sëñ bi waxoon rek te mom mi mu wuñu mu jëmeñ ci rek ma bëgg ñun ñëpp bu baba ndariño ci ndax kat bàmmeel xat na lool lëndëm na lool kon ke la fay la la fay gungé mom waro ko bàyyi la la fay gungé waro ko bàyyi loolo tax nak ñu takku ba deugal na ci badar ji duñ ko bayyi mako kon ci fekk si nag ñu jël kep ko xam bok nga ci te ko ci bir kër geer nak jëli la bo ñëwé jëli la bo ñëwul jëli la bu ma nak nag ñëpp ñëw ndax ñu bokk tuyaaba ji ñun ñëpp ah lima kadi me onak son ni nag soxna mam la lo maam koy wax ndax moo fi sëñ Matar Lo sëñ bi da koy sëyam moom la fi yàlla teg kon lo na nga ñaanal ci sa barke bay gone yu ndaw yi topp sama ginnaaw xam ne bu son jaayantee sonn ñu ma demal teri nyomak mottil ma benn ci abi faal waaw yaasin alsaan mbay ma ñaanal ma bëgg nga ñaanalal ma leen ma dogul ma ci sa barke baay ñu am taari bu mu di saata bu leen fi jële fa wax dina mën la ilaha ñaan yërmande faal dooley biir faal ak bite ndimbalo faal yërmande faal dooley biir faal fam jafe doolel noo faal kawel noo لا إله إلا الله